mbokk jullit yi nañu jàpp ci aqidatu tawxid te mooy pas-pasu wéetal yàlla comme ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na innal abraar naka góor ñu baax ña ak jigéen ñu baax ña la fi naim way sax lañu nekk ci xéewal yu sax xéewal yooyu ci àjjana nag bokk na ci alal araik ñu nga tëdd ca lal ya yanduruun di xoolante allahu akbar ay waay dugg àjjana di xoolante di waxtaan ndeysaan tëdd ci sa lal te xam nga li jigéen a neex mooy mat laa àjjana moom du Séné du lañ koy liggéey du àdduna lañ koy liggéey mat laa boobu li naan confort dëgg dëgg dëgg dëgg moom mooy mat laa àjjana mat laa àjjana mooy confort loo xam ne boo tëddee sa yax tàlli àjjana amul ñaq amul tufli amul ñendu amul sonn amul gëmmentu amul tàyyi amul feebar amul dem duus amul sawi allahu akbar parce que borom bi dafa bëgg waxtu wu nekk ngay yëg bànneex waxtu bu ne ngay yëg bànneex nekk fa jàkkaarloo ci lal ya xam naa ni menuisier yi àjjana mën nañoo liggéey allahu akbar menuisier àjjana yi liggéey lal ya lal yooyu kenn du ko dilian lal yu jekk du am mat néeg ya du am mbóot du am lënd du am lëppaa lëpp du am jargoñ allahu akbar moom daal ñu nga tëdd alal araik ca lal ya yanzuruun di xool xéewal yi leen yàlla defal ak i teraanga yàlla ne boo xoolee waa ajjana yow taarif da nga xam fii wujuhihim ca seen xar kanam ya nadrata naim nëtëxu xéewal koo xool ci ajjana rek da ngay gis xéewal ci moom ñu ne ha yàlla ne ca sax li ci gën a doy waar mooy xaw na dañ leen di nandal min raxiq ci njar moo xam ni maxtuum dañu ko tëjee misk raxiqin maxtuum mujaahid nee na tur la ci turu sàngara àjjana yi bokk la koobaay yi fii de laagadeel yi gaa yi naan fii ay likkër nga xam ne danga koy naan man di saw sa tubéy wala nga naan ko màndi doo xam nooy dox bandi ba naan naan mànde ci gën boo màndee demal tëri bul yàqal ñi naanagul àjjana dangay naan ba doyal te doo màndi allahu akbar àjjana dangay naan ba pare sa baat du damm sa làmmiñ du damm sàngare àdduna boo naanee sa làmmiñ damm moo du waa boy parce que làmmiñ bee damm sàngare àjjana boo ko naanee danga dox doo mel ni kuy tiim pax sàngaray àdduna boo ko naanee di dox day mel ni pax moo tax ki naan sàngara day yëkkati tànk bi balaa xoolaat moo tax muy jëm góos jëm droite àjjana amul jéng-jénglu allahu akbar borom bi nee na yusqawna min rahiqin maxtuum xitaamuhu buteelu sàngaray àjjana la ñu ko tëjee misk parfum bi ñu naan misk allahu akbar yàlla ne ay waay lii ma leen wax yépp yow xale bu góor bi yow bu jigéen bi يوم تولى 18 عام يوم خالي بي جوغن بي 14 عام يالا ني وفي ذلك بانيخ بنك نيك اجانا بنك بي توب محمد صلى الله عليه وسلم بانيخ بنك نيك توب يالا وفي ذلك تي لولو يوم مكمي يوم مام يوم باي يوم باجن yow suma sœur yow suma jigéen yéen ñëpp borom bi nee na المتنافسون واي نجكنتي نجكنتي لن جاكا يا جمايا توب يولنت بي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون غرباء غرباء